asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaawu fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ci atum ñaari ak ñaar fukk ñaar fukki fan ak juróom bokkul ci lim yi fàtte lim bu rafet la kon tey ci gaawu bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ciy tere tere wàccandiku moom gaawu mooy ku ca sangu wala ku ca fóot fukki fan ak juróom ci weer wu nekk nag deesu ca yeggale ab sëy deesu ca tukki ñaanuk bis bi maa ngi sàkku njéggalul yàlla mi aji màgg ji tey tuub dellu ci moom astaghfirullah al azim wa atubu ilayhi xadiisu bis bi yonent bi sallallahu wa sallam nee na ku yar ab xaj te du xaj boo xam ne rëbb la koy dawee wala wattu mu ngi wàññi ab yoolam bis bu nekk lim bu bari xadis bi buxaari ak muslim ñoo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man iqtanaa kalban illaa kalban daariyan li saydin aw kalba maasiya fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiraatoon rawaahu buxaari wa muslim waxtu julli yi suba waxtu na tàbbi juróomi waxtu wu tegal juróom fukki simili ak juróom ñaar tisbaar benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak ñaar tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak ñaar timis juróom-ñaari waxtu wu tegal ñaar fukki simili gée juróom-ñetti waxtu wu tegal fanweeri simili ak benn loolu mooy waxtu julli ci Tuubaa ak li ko wër